dal leen ak jàmm mbokki internetu Buzz M TV Abdou Aziz Ndiaye gër këram ma ngay jaxasoo bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu daal di fës démb ak tey jii ginnaaw ba mu takkee ab ñaareel kii di ab aawam bu desoon sa kër ga ñu gën ko xam ci Miss Ndiaye moom nag dafa daal di ñibbi fële sa këram. ginnaaw bi muy gisee ay vidéo ak ay photo yoo xam ne daal moom mii di jëkkëram ak ab ñaareelam ña ngi koy def si réseaux sociaux yi mu daal di fës lool ñuy jot ab xibaar sax buy wax ko ne nag li waral maanaam ñibbi këram googu nag mooy moomu Aziz Ndiaye dafa àndoon nag ñaareelam bi di Aïssata Tall ñu nga fële sa màkk te boobu nag takkoon na gu ko loolu nag bokk na si li ko metti si ay xibaar yu nu jot. nag moo daal di waral moom ñaareelam bii di kii di nga xam ne moo di Miss Ndiaye mettit boobu daal mënu ko muñu tax mu daal di ñibbi fële sa këram xibaar bi dinañ leen ko toppal ba xam nag ba mu gën a leer seeni bopp